alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaiin mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne diine lislaam sharia ab lislaam mësula am aw tëriin boo xam ne ay luwaala yu mas am ci histoire ci lu yàgg walla ci lu yees loo xam ne mate na nim mate maandoo nim maandoo doon sharia boo xam ne dafa saafara lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu matière walla mu aju ci wàllu ruux sharia boo xam ne dafa indi lépp luy baaxal àdduna di baaxal itam alaaxira ci nag ak yamoo akuk équilibre gu xóot gu matale goo xam ne kenn mënu koo xam lu dul koo xam ne dafa doon boroom xam-xam bu ko jàng gis ko walla mu doon koo xam ne dafa dund ci keppaaram gis ñu di ko appliquer mu door a xam ne ndekete lii am na li waral loolu moo di sharia boobu ki ko wàcce mooy ki bind bindeef yi kon moom mooy ki xam seeni mbir moo xam itam li baax ci ñoom lii ñuy dund tey muy ab civilisation boo xam ne bu yees la boo xoolee lim àndal lépp ci ay principe ak i tërëliin ak i loi dangay gis ne àgg na foo xam ne sax ci wàllu matière civilisation doomu aadama mosu fa àgg mukk waaye nag dangay gis ne civilisation boobu yi sàggane na lépp loo xam ne lu aju ci wàllu ruux la lott na ci amal société boo xam ne misaal lay doon société boo xam ne royukaay lay doon ci wàllu jikko loolu moo tax dem nañ ba xam ñépp àndandoo xam ci lu biir ne civilisation bii nga xam ne dafa jëm ci wàllu matière day ku la ci gën a kawe bañ di ko gën a soow ci wàllu am am ak wàllu man-man ci wàllu matière boo ko xoolee ci wàllu jikko mooy ka ca gën a suufe loolu la ko indi mooy imaan fu mu nekkul ab xiifa nga fa boo xam ne dara mënu koo reggal lu dul imaan ci boppam rek moo ko man mbokki jullit yi lislaam ak mataayam ak maggaayam ab taaram melokaanam dafa faj doomu aadama daf koo defar ba jikkoom baax dafa yëkkati bakkanam ci ay atte yi nga xam ne moom la teg ak ay tëraliinam yóbbu ko ba mu àgg ci doomu aadama fi mu mën a yem ci ab mataay loolu moo tax boo xoolee ndigal yi jóge ci sunu borom tabaraka wa taala te nekk ci alquran wala mu jóge ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te nekk ci sunnaam da gis ne li ci nekk ci luy laabal bakkanu doom aadama ak di jubbanti ay jikkoom jéggi na dayo ci ab taar ci ak mat ci ak baax moo tax sunu boroom tabaraka digal nu nu maando muy baat bu làmboo lu bari ci aw yiw digal nu nu jox bépp boroom àq ñu jox ko àqam digal nu nuy jokkoo ak bokk digal nu ñuy rafetal jëme ci ay waajur digal nu nuy yërëm miskin di dimbaliku lot di fekk lépp loo xam ne lor la di ko jañ ba mu jóge ci société bi di joxe di joxe ca la nga am boole ko ak di fegal nit ñi lor di digle lu baax boole ko ak di tere lu bon di siiwal jàmm ji nga xam ne mi ngi tàmbalee ci siiwal ab nuyoo di tasaare ak cofeel ci diggante bindeef yi booleeg maandu booleeg wattandiku tooñ moo xam ka ngay jëf leen teel yéen a bokk aw xeet wala bokku leen ko yéen a bokk diine wala bokku leen ko yéen a bokk pas-pas wala bokku leen ko jikko yooyu yépp jullit bi daf ko war a melowoo ak kum mën jëfanteel wëlbatiku tereenu lépp loo xam ne dafay nuru wor wala ger wala naxe walla kiñaan walla jëw wala rambaaj wala bépp jikko boo xam ne jikko bu ñaaw la buy yàq diggante ay doomu aadama kooku boo ñëwee ci lislaam da ngay fekk mu ko jalgati ñeneen ñi moo xam ci seeni bakkan la muy lor leen ci seeni bakkan ak seenu dund wala lor leen ci seeni alal wala lor leen ci seeni der muy seen honneur wala ci seen diine sax ak ci seen xalaatiin lislaam daal diine la joo xam ne indi na lépp loo xam ne dafa war a boole société bi ñu doon benn gardeel kenn ku nekk àq ji nga xam ne moom nga am ñi jox la ko ba mu mat sëkk devoir bi nga xam ne danga ko war a joxe nga joxe ko ba mu mat sëkk moo tax lépp loo xam ne daa war a mën a yàq tabax boobu yi nga xam ne moo benn la jullit ñi loola boo dikkee da ngay fekk ne lislaam da koo xaraamal noonoo da koo xaraamal mbañeel da koo xaraamal yi nga xam ne sax ay jumtuwaay lay doomu adama di jëfandikoo mu mën a jur loolu dañ koo xaraamal lu mel ne sàngara nit ki bu ko naanee mën na koo indil yooyu ñu xaraamal ko lu mel ne carte nga xam ne alali jàmbur nga jël xaramal na ko wax ci at derub jàmbur dem na ba sax sa mbokk mi waxaale di jaay daganul nga ñëw di waxaale ca wet ga wala nga ñëw di jaay ca wet ga di xëccoog moom ab client loolu sax lislaam daf koo xaraamal ki ñëw di labat sax soxna nga ñëw dugg ca biir di labat loolu lislaam daf ko xaraamal loolu lépp ngir garder bennoo gi ak mbëggeel gi nga xam ne moo war a sax ci diggante waa société bi moo ko waral xaraamal lépp loo xam ne dafa jëm ci xeeb doomu aadama ak suufeel ko loolu moo tax sunu borom tabaraka wa taala wax nu ci alquran nenu wadkuru ni'matallahi fu ngeen toll de leen fàttaliku xéewaluk sunu boroom alaykum li nga xam ne da ko sotti ci seen kaw id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana da leen a fekkoon ngeen doon ay noon doon ñu tasaaroo ak bañante ak noono moo doxoon seen diggante mu boole leen ba ngeen mel ne ay doomi ndey kon nag kii dund lislaam moo tax ñuy wax waaye ku dund lislaam xéewal goog yi nga xam ne mooy bennoo ba mel na ay doomi ndey wala lu ko raw loolu doo ko yëg loolu moo tax itam fépp foo xam ne rëq-rëq nga fay am wala jooyoo wala mbañeel lislaam dafa santaane ne jaadu na ci jullit yi ñu dox ngir réparer loolu defaraat ko li ñu tuddee islaaxu zaatil bayn mu ne fattaqullaha wa aslixu zaata baynikum ragal leen yàlla te saa boo xamee ne noonoo dox na diggante kenn ak kenn ci société bi jóg leen ngeen réparer loolu defaraat ko dox jéego yiw moo tax borom bi tabaraka waxaat na ko laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas nee na lu bari ci ndaje yi ñuy daje di fa waxtaan aw yiw nekku ca lu bari ci ndaje yi ngeen di dajante di waxtaan ak a déeyante nee na njariñ nekku ca nee na lu dul ndaje moo xam ne la leen fa dajale mooy digal nit ñi ñu génne ci seeni alal def fi sabilillah walla la leen fa dajale mooy digleente lu baax comme sàkku xam wala la fa dajale mooy defar ay diggante yu yàqu nee na nag képp ku def loolu fekk sàkku ngërëmul sunu borom tabaraka wa moo ko waral nee na ñooñu yàlla di jox ab yool boo xam ne yool bu màgg la mbokki jullit yi diine lislaam mooy diine ji nga xam ne moo génne nit ñi ci ak lëndam yóbbu leen ci ak leer waaye diine jooji tey jii day eh, ay attaque mi ngi koy jóge fu nekk maanaam ñi ngi dal ci kawam kenn ku nekk ci ñoo xam ne lenn ci biir ay doomam lañ bokk sax bokk nañ ci biir attaque yooyu di dal ci kawam am ñoo xam ne ca bitti lañ nekk doon nooni lislaam ñoom itam seeni attaque mi ngi ñëw bu baax a baax a baax kuy déglu ku nekk danga nga yëg ni ci jamono yi suñ tuddee lislaam ñu jàpp ne daal kooku diine la joo xam ne rey ay bakkan wala tuur ay deret wala fëkk ay doomi aadama loola daal day mel ne diine la joo xam ne dafa taqoo ak loola ba tax ñi nga xam ne dañoo sawar lool ci wax ci lislaam ak ŋàññi ko ak jëmale ci moom lu dul noona dañuy sawar lool ci tasaare lu mel noonu waaye yemuñu ci tasaare ko waaye di ko askanale itam ci lislaam ak ci jullit yi te loola doon na mbir moo xam ne tooñ gu mag la ci lislaam benn ñàkk xam moo koy waral wala xam ba noppi yàq tax laa jóg diine joo xam ne daf ne kàddu gu ñaaw boo ko waxalee boo ko waxee jëmale ko ci jullit bu jigéen sak pay moo di juróom-ñett fukki yar lañ la war a dóor yoo xam ne dañuy woo nit ñi bañ ñëw fekke ko ci kàddu goo wax kon kooka nga fëkk ko di xotti ormaam munta nekk ci diine ju mel noonu kon lu bokk ci lislaam nañ xam ne ci la lu ci bokkul ñu xam ne loola du diine bokkul ci lislaam kuy déglu fan yi da nga déglu coow lu bare bare bari jëm ci diggante yemale góor ak jigéen ak tur yi ñu ko doon wax di ko tudde parité jamono yañ ko watee defoon nañ xutba boo xam ne laaloon na lu jëm ca loola ñuy xam ne ñi ciy wax tey dañuy wax ne lislaam day joxul euh, jigéen àq ji nga xam ne moom la jox góor ñu jël ca benn firnde ñu ne ndax kat miraas lislaam day jox góor ñaar jox jigéen benn muy wax ju doy waar joo xam ne ñàkk dégg moo ko waral lislaam day jox góor ñaar jox jigéen benn loolu mooy lan du caagi ni fu góor ak jigéen di daje di donn nit dañuy jox góor ñaar jox jigéen benn déedéet léeg-léeg jigéen sax ëppale góor su fekkoon di nit dafa faatu bàyyi ay doom yoo xam ne tey mat na ñaar fukk ñenn ñi di góor ñi ci des di ay jigéen bàyyi fa yaay wala mu bàyyi fa baayam la chaque ne yaayam jooju la muy doon moo ëpp doomam yooyu lañuy doon moo xam doom yu góor lañ moo xam doom yu jigéen te yaay ji jigéen la boo ko toppee woon noonu ci ay masalay miraas mën ngaa génne juróom-ñaar fukki masala yoo xam ne jigéen moo fay ëpple góor kon wax ne góor ñaar jigéen benn ab luwaa bu nekk ci biir miraas loola du lu am fi mu amee kay mooy diggante ay càmmiñ ak seeni jigéen ñaar ñi nga xam ne kii góor la kii jigéen la ñu bokk ndey ak baay walla ñu bokk baay lislaam ñëw di seddale seddale bu maandoo nag la def ndax dafa xool ku góor ki nga xam ne ëllëg lislaam daf ne ko danga war a jëli yeneen jigéen yor leen ak njaboot di ca jóge lislaam ne la yow yaa leen di yor yaay dépense ci ñoom yaa ciy def kon ñu naa ah, kon nañ ko jox ñaar yow mii nga xam ne yaa jigéenam di rakkam bu jigéen ñu ne yow danga war a toog fii xaar góor ñëw jël la goo xam ne soo nekkoon milliardaire sax sa lépp moom la war kon kooku suñ ko joxee cinquante pour cent defe naa ne loolu ak maandu la ndimbal la sax ndax daanaka doyewu ko dara te bul fàtte ne kooku fa muy séye sax su demoon ba am jaaxle wala lot ci càmmiñam ñoo lii lay delsiwaat mu jàppalewaat ko te bu boobaa da koy def kon dañoo war a xàmme ñaari mbir yemale ak maandute bokkut l'islam maandute moo ko tax a jóg waaye yemale tax koo jóg égalité bokkul ak justice bokkul ak maandute maandute mooy ku nga jox ko àqam ci misaal boo yoroon ñaari soxna tey kii di sol yéere yoo xam ne day laaj nga jëndal ko juróomi meetar keneen ki ab tolluwaayam ñetti meetar jot na ko kenn ku ne da nga koy jëndal lu ko jot waaye waxuñu ne nga yemale leen soo dikkoon kii sol juróomi meetar nga ne ko ñetti meetar laa jox kat parce que moom laay jox kii kon nga tooñ ko kon yemale bokkul ak maandu maandu mooy nga jox ku ne ak xam góor ci tër ci tëralinu lislaam ndax diine lislaam dafa doon diine joo xam ne ngir nga mën a àtte benn tomb ci moom dangay xool ni mu tëree népp ba àggal door a àtte waaye bul coppati dara rek nga ne lii lee ko tax a jóg dafa am yeneeni lal yeneeni gisiin ak i tëriin yoo xam ne moo gën a xóot li ngay wax yow mii wax ci kaw kon lu muy def lu nekk dafa am fu mu ko teg moo tax mu def loola su amul woon fu mu ko teg kon du def loola kon ki muy jox ne ko jëlal benn dafa xool responsabilité am kim naan jëlal ñaar dafa xool responsabilité bi koy xaar defe naa ne loolu mooy maandu gi gën màgg ci maandu yoo xam ne mënees na ko wax ci béréb bu mel noonu am na yi ñuy wax nag nga xam ne lu lu yees la ci sun réew yi doon lu yees loo xam ne gan la fi dañ koo jëli indi mu doon ay loi yoo xam ne dañoo xool ay bërëb yoo xam ne dañ koo tànn muy béréb ya ñuy dogale ci niñ koy tuddee nga xam ne décideurs yi foofa la ñuy nekk moo xam ci parlement bala moo xam ca communauté rurale yi ñu nekk fu góor toog na jigéen toog ca wet ga na góor ña tollu daal na jigéen ña toll noonu loola lu mel noonu bala ñu ko jàllale di ko wate waxoon naa ne jaadu na ñi xool réew mu nekk day xool la dëppoo ak aadaam ak cosaanam ak diineem ak pas-pasam loola ñu door ko jàllale fa ñuy watee ndax bërëb ya ñuy watewukaay ay bërëb la yoo xam ne jaaduwul ñi koy dal jaaduwul ñi koy doyadal ay mbir di fa jaar ñi wëlbati ko sànniwaat ko ci àll ba loolu la muy jur mooy dem ba ay bërëb yu ñuy ormaal duutu am ci réew mi te waxkat ba day wax ne ida aradta an tutaa fa mur bi ma yustataa su fekkee dangaa bëgg ñi di la topp jamono yu ne da ngay digle luñ man soo bëggee ñi di la topp di topp sa ndigal dangay ngay digle luñ man xam nga nga ñëw ci benn dëkk boo xam ne wala béréb boo xam ne da nga ne dañoo bëgg suñ jëlee ca ñay dogal suñ jëlee góor jël jigéen teg ca wetam jigéen ña fa nekk préparé wuñ leen pour loola yar nañ leen beneen façon yarin boo xam ne lañ jublu ci ñoom mooy ñu doon leneen lu dul loola boo leen doon bindloo seen tur lu ëpp ci ñoom quatre pour cent duñ la bindal seenu tur du ci lii du ca lee nga ñëw ne ko damaa bëgg nga bokk ci décideurs yi nag bokk ci ñi nga xam ne ñooy dogal lu mel noonu boo ko defee njuumte am mi ngi mel ne rek nga ñëw ci benn dëkk yor ab société aajowoo ay chauffeur ci misaal juróomi nit a nekk ci dëkk bi yépp ñoo xam ne ñu mën a dawal oto lañ ay góor lañ nga génne benn loi boo xam ne dañ ne ko boo jëlee chauffeur bu góor da jël chauffeur bu jigéen te te góor jigéen ju am permis nekku fi loolu nu muy sotte day lànk parce que mënta nekk soo bëggee ñu topp la digle loo xam ne lu mën a nekk la kon yi nga xam ne dañ koy jàllale di ko wate nañ koy xool bu baax kilifa du digle dara ba noppi di ca dellu gannaaw ab lu tal nepp assemblée nationale ñu ne ña fa teewal nit ñi foofa la ñuy daje di dogal lu ñuy def lu ne war nañ koo seet bu baax a baax a baax ba duñ wëlbatiku def ko ba àggal nit ñi di ko xotti ngay wëlbatiku di àndaat ak ñoom ca loola loolu day doyadal béréb yoo xam ne dañ koo waroon a teg place boo xam ne place bu am solo ci ci réew mi la mbokki jullit yi kuy déglu fan yi danga déglu itam ci presse bi moo xam bu ñuy jàngale moo xam bu ñuy déglu ak ñiy woote droit de l'homme ñoom it ñiy wax ci àtte sharia ay wax yoo xam ne jot naa cee dégg yu ñaaw yoo xam ne jaaduwut am na jëmm joo xam ne am na problème ak jeneen jëmm yoo xam ne ma nga dëkk fële ci Arabie saoudite xulóob alal moo dox seen diggante yàlla moo xam nu mu demee waa jooju jël nañ ko yóbbu ko Arabie saoudite toog nañ dégg ci presse bi ñuy wax wax yoo xam ne ñaaw na ba jéggi dayo am ku ne bu demee rek dañ koy daal di faagaagal am ku ca teg ne waaw parce que ñooñu sharia la ñuy atte woote sharia moom lim xam mooy dagg bopp dagg ay loxo dagg ay tànk loolu wax ju ñaaw la ci sharia lu leen joteeg Arabie saoudite ak lu mel noonu loola taxu nuy wax noonu waaye jëmmi sharia bi ñu wax ne xamut lu dul dagg bopp ak tànk loolu lañuy ñuy xamle ne demewul noona rey ci lislaam doonut lu woyof lu diis la bakkan bakkanu doom aadama tuur ko ci lu dul dëgg ci bakkaar yi gën a rëy ci la bokk bal yonent borom bi tabaraka taala wax na ci alquran ne ko tuur bakkan boo xam ne tuuru ko ci dëgg kooka jahannama mooy ak payam ëllëg kon dul woyof Abdullah ibn Omar ak ñeneen ju dul moom sax Abdullah ibn Abbas daa dañ wax ne kaaba gi muy néegub yàlla bi la amul dara lu gën a màgg sa orma yow kaaba ak yàlla gi waaye day bakkanub jullit moo gën a màgg fa yàlla noonu lañ ko doon waxe kon nit ki tuur deretam ci lislaam doonut lu mu woyof ba tax na ñi nga xam ne buñ déggee atteb lislaam wala ñu ne chariatul islam lay jëkk a dem ca seen bopp mooy daal ku sàcc ñu dëgg sa loxo ku rey nit ñu rey la ku def naa nga maanaam defe ne daal loolu mooy chariatul islaam te loolu lu néew la ci atte yi nga xam ne moom la lislaam teg lislaam ba mu daataan àgg ci loolu dafa jël matukaay yu bare bare bare bari yoo xam ne boo ko dee xool sax bu yàggee da ngay mujj nga ne daanaka rey nit sax xawuta mën a nekk ngir ay ay matukaay yoo xam ne teg na ko yoo xam ne bu lii amee bu ci mu lënt amee bàyyi leen boobu su fekkee sikk sàkk am na fi bàyyil boobu noonu la koy toppee di ko toppee ba mu wóor ne mbir mi daa mel ne bëccëgum dara kàmm nag kon ku toog fële yor sa xalima di bind wala nga yor sa bindukaay wala sa yëglewukaay sa tasaarewukaay xabar di wax loola neex nga xam ne lislaam xamu ca dara di wax ne dañ koy rey fan lañ mas a dégg ci àdduna ñaari nit ñoo xam ne dañoo xuloo ci alal ñu àttewu ñëw ci lislaam ñu rey kenn ka kenn mas naa dégg àtte bu mel noonu ci lislaam musta am ci lislaam tey du am ba mukk kon taxaw di wax naan kooka dañ koy faagaagal ak suñ gaawul def naa nga ak nangam loolu lépp ay waxi caaxaan la yoo xam ne yu tegul fenn la lislaam du rey nit ci lu mel noona ñu xam ko même su fekkoon ne nañ ko waxee lislaam lañ jël di ko ko attee suñ ko ko attee itam foofa rey mënu faa nekk loolu ñu xam ko mbokki jullit yi bokk na it ci mata xam moo di ne la lislaam ngir teg nit sanction ci moom moo xam ku ñuy dóor la moo xam ku ñuy rey la moo xam ku ñuy dagg loxoom la loola doonut lu yomb muy am ay charte la am yoo xam ne ngir mu daje loolu yombut waaye nag ñu xam ne sart yooyu dana daje ndax li ko waral mooy maandu te moo laaj loolu lislaam nanguwul ñi bàyyi nit ñi nag lu leen neex def déedéet maandute ngir mu am ci kaw suuf dafa laaj nag loxo bu dëgër boo xam ne ku lànk féeteerlu di jalgati dalay yemale nga régler te wóor na ma ne nit ñi suñ xasee dem ba mu wóor ne loxo bu caaxaanut am na boo xam ne justice képp moo ko tax a jóg faalewul ma sàmbaag ma dem ba am na daraja amu ko am na alal amu ko buur la du buur ku tooñ ñi teg la ci yoon société bu mu am société bu mu am danga gis nit ña ne tekk delluwaat ci seen bopp gis naa benn américain boo xam ne dafa tuub ñëw di jàng lislaam ñu di ko laaj ñu ne ko yow lan moo la tax a tuub mu ne moom dafa ñëwoon ci benn société di liggéey ci pétrole ci arabi saoudite nee na mu xool gis sécurité bi ni mu demee foofu ak réew moom jóge moom lañuy financé ci sécurité at mu nekk ci ay milliards ngir ak dal mën a am te nee na boo taxawoon ci mbedd mi yor fukki dollar di ko tàllal boo yeexee danañ ko jël ba noppi rey la ba watuut mu ne ma gis ku toog ci taabal mooy ñiy liggéey ci wàllu ne di weccee ay jali xaalis wër leen boo xoolee fi dollar a ngi fi euro ngi fi rial yaa ngi fi mu toog kenn gardé wu ko yorul ngànnaay nit ñi ñëw di wecc ko di dem te kenn waxul dara nee na ma settantal ko ba mu yàgg ma ne li indi lii loolu moo war a àtte suuf su ma ci mënul dara it naa dugg ci diini jooju loolu moo ko tax a tuub moom dem jàngi lislaam kon bokki jullit yi lislaam jógul ngir rey nit ñi waaye dafa jóg ngir sécuriser leen dafa jóg ngir teg leen ci condition yoo xam ne kenn du jalgati seen alal ñoom it duñ jalgati alal li kenn te defe naa ne loi bu ñu koy teg lu mel noonu lañ ci jublu kon lislaam diine la ju maandu joo xam ne ku ko mënta dundit nga xam ne mënoo koo dund ngir sa càggante nga tuub dellu ca sa boroom waaye taxaw nag yor yor say rajoog say journaux sa yëf yi fa ni mel noonu di ŋàññi saaga di xaste loola du wàllu koo xam ne yiw moo ko tax a jox ci am réew borom bi tabaraka wa taala nee na inna allaha ya'murukum an tu'addu al amaanaati ila ahliha yàlla daf leen digal ngeen doon ñoo xam ne dangeen ngeen di wóor lépp luñ teg seen loxo ci kóolute ngeen delloo ko ka leen ko joxoon wa ida xakamtum bayna naasi an taxkumu bil adl su ngeen di atte ci diggante nit ñi ngeen atte ci ak maandute waxul ak yamale de waaye ngeen atte ci ak maandute loolu mooy li leen seen borom tabaraka wa taala di digal ci la leen waar itam allahuma inna naudu bika min an nushrika bika shay'a min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu allahuma inna naudu bika min zawali ni'matik wa tahawuli aafiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa ala xulafaa'ihi ar-raashidiin abi bakrin wa umara wa usmaana wa ali wa ala saa'iri asxaabi nabiyyika wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin inna allaha ya'muru bil adli wal ixsaani wa iitaa'i dil qurbaa wa yanhaa anil faxshaa'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkaruun wa aqimis salaah